تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaamala raja barakaatuhu mbokk internet Farokh TV ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaante teewlu bi ngi ñuy teewlu seen seen bu mag bi di Farokh TV ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ngeen ñu topp saasu ne ci actualité ci dëkk bi waaye rawatina borom xam-xam yi ñu nekk ci biir dëkk bi ñi nga xam ne ay borom xam-xam pire lañu indil leen ko ngeen jëflante ñoom ci wàllu shaahir wala ci wàllu baatil ñu wax leen loo xamante ni dara du ci dañ incha allah bi ñu ngi toog ak satu maam Khalifa nekk doomu leer waaye nekk sëtu leer Serigne Amidou ñas moom lañ toogal fas yéene waxtaan ak moom actualité ci réew mi waaye rawatina xam bi nga xamante ni mu ngi dimbale jaamu yàlla seen aajo di ci faju surtout ci loolu incha allah rabbi danañ ci ñëw mais dañ koy bàyyi rek mun na yow Serigne Amadou seen seen bu mag bi di Farokh TV ñu am mbégte ak kontaan tey jàkkaarloog yow pour fas yéene waxtaan ak yow ci réew mi waan rawatina ci xam-xam bi ñu fekk la yaa ngi tiim sa kaamel nii di jàng Serigne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله سميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المقتدي ومن يضل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح القاتم النازل الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ Amadou waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte bu baax janoog yow sa jëmm ji macha allah rabbi mais sëriñ Amadou ma bëgg ñu waxtaan ci ci wàllu réew mi d'abord surtout ci wàllu politique sax si laa bëgg ñu ñëw tey ndax xam naa ne réew mi ñor na lool macha allah te lépp loo mos a wax nit it teg na ci bëtam ci lépp loo xamante ni luy ñëw la Sénégal war ko moytu waaye rawatina fi ñu jëm ñi ñi gis ne ñu ñëw ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr fa laa bëgg ñu ubbee suba incha allahu rabbi ci mardi bi mu nekk le 6 décembre ci lañ leen woo ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar ndax nga gisee maanaam jàkkaarloo boobu ndax nga ko gisee bis boobu. waaw ñi ngi sant yàlla bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal. yàlla mi nga xam ne mooy allahu ahad di lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad di ko sant bu baax ci xéewal yi nga xam ne mi ngi koy def ci ñun ak jaamam yëpp. di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam di rogganti sunu mbootaay tim ci gannaaw ak Sidi Ahmad Tijani abul Abbas Sharif radiyallahu anhu mi nga xamne ci mom ci sëtt doom ba lañuy roté ndax suñu mom khalifa mo waxon ne mu middu ahli allah ajmain minhu futuhu li arbab al futuhat mu ne Sidi Ahmad Tijani ab sëtt do la bo xamne ay tuyaux lañ ca branché mu jëm ci kër yi. Mm-hmm. di robinet boo xelli muy xelli. Mm-hmm. gërëm mi ngi xelli de robine baay xelli waaye ndox maa ngi ca sëtt doo ba. Mm-hmm. mooy forage ba bu tëjee rek. robine benn dootul amati ndox. ñun sunu so forage. mooy sunu sang bari Cheikh Sidi Ahmad Tijani. Abil Abbas Sarif radiyallahu taala anhu. kon tabarakallahu li nga wax nag mu mel ni. Euh, réew mi fi mu ne nii ku tiitut. doy na waar. jaaxle nañu. Euh, nit ñi yéeme na li xew ci jamono ji surtout ci àdduna bi xaw naa yéeme mm-hmm. ci li nga ubbee nag ci lañuy njëkkee mooy mm-hmm. mbirum président Ousmane Sonko mm-hmm. mi nga xam ne dañ ko war a dafa war a wuy ji la siis nga xam ne ñun yàgg nañ cee wax duñ ci tàyyi di ci wax yàlla daf ñoo boole ak président Ousmane Sonko yàgg na wax naa ko ci ay site yu bari xëy na fii ñu ngi fiy door di ñëw moo tax foofu ñu leeral ko li ñu boole ak président Ousmane Sonko dafa am nit ñu ko bëgg lool jëloon ñu duggloo woon ñu xalwa ngir ñu ñaanal ko ca problème am bu njëkk ba ca mois de mars dëgg la ñu duggoon ci xalwa biñ ci duggee yàlla def ñu am luñ ci gis biñ ko gisee bi ñu génnee dañ ne leen alhamdulilahi rabbil alamin coow li day du baax dana métti deret dana ci tuuru waaye turu Ousmane def ciy yëkkati ko ci la ñu gisee woon ne alhamdulilahi rabbil alamin Sénégal dina am président de la république bu bees ci 2024 fu ma dugg fu ma fu ma ku ma topp ku ma mos a topp rek dégg nga ma wax leen 2024 incha allahu rabbi bi hawlillahi wa quwwati yàlla dogal na ne président bi ñëw Ousmane lay tudd te Sonko lay sant ma ko waxee ba tey a dëgg mm-hmm. waxuñ ko ci nag ci bëgg mm-hmm. dañ koo wax mm-hmm. ci loo xam ne yàlla daf ñu koo wan ci wan boo xam ne wan bu leer naññ naññ naññ naññ la gis nañ ci itam ay galgal yu du jeex li ñëw nii lenn rek la ci li passé nii yëpp yàlla xam ne lenn rek la ci waaye fii ba 2024 galgal du ci jeex kon bu waree mais dama bëgg est-ce que est-ce que dina yomb fii ak 2024 sëriñ bi tamit ni nga waxee yomb na de waaw du yomb ndax xam nga lu tax du yomb yàlla mayewul dara daf ko abale léppam daf ko jaay Ousmane moom xam na loolu mm-hmm. xam na ko bu baax a baax li ñuy wax nii mm-hmm. waaye eh, nguur gi mu ko seqal mm-hmm. dafa am lu ñu xamut mooy Ousmane ay mbiram ci li muy yëkkati ko mooy ci coow coow lu am bu fekkoon ne juróom fukki nit la am bu coow li passé téeméeri nit lay am xoolal la ma la wax depuis mois de avant mois de mars ñu bari ci réew mi xamuñu woon Ousmane Sonko ñiy suivre politique rek ñoo ko xamoon waaye coow la ba mu amee mm. nu muy demee muy gën a yokk nu muy demee muy gën a yokk mm. xoolal ba tey ji fi mu toll te suba bu amaatee dafay gën a yokk mm. maa ngi dalal xelu euh, ñi nga xam ne ñoo bëgg usman Sonko ne leen nañ tëdd nalaw na ma leen ko waxee woon la 3 bi passé day dem delluwaat këram jërut kenn di dem di ko fekk ji wallahi alazim jërut kenn ñun li ci war yépp yàlla xam na ne bokk naa ci ñu koy ñaan du man kenn waaye li ci war yëpp alhamdulilah rabbil alamin def nañ ko day dem ci jàmm ñëw ci jàmm te Sénégal benn coow du am incha allah nga gis ne dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko bi depuis mois de mars daaw 2021 ba tey ah ñi topp benn dossier boo xam ne maanaam kenn xamul fan la ñu jëmee mais est-ce que du gàllankoor Ousmane Sonko fii ak 2024 ak état bi mu ko seqal du ko gàllankoor raxasu réew mi la wax naa la léegi ne la yàlla mayewut dafay jaay pour banex am. fo jafe-jafe am. xolal mag ñu bax ñep Cheikh ahmed Bamba. lata muy am limu am xolal fim jaar coono yi jafe-jafe yi donte tëkkali wu mako ak Ousmane. waye nak lu bax bokay bokay netali ci rew mu bax da ngay netali mag ñu bax ñu jëf lu bax absolument. cheikh cheikh cheikh Sidil Hadji Malick mm-hmm. xoolal fi mu jaar ak tubaab yi fi mu jaar ak ñeneen sama maam El Hadj Abdoulaye Niass mm-hmm. xoolal li mu xeex mm-hmm. xare ay pate badiaan xare sombo lu ne def na ko waaye tey anuñu nuñ mujjee ak ñañ doon xeexal kenn déggatut seen ñoom ñoo fi nekk léegi Ousmane itam loolu la ko yàlla defal lii moo nekk maanaam du yomb dana bari coow waxoon naa ko ci yi paase nii yëpp waaye coow li yëpp wallahi lazim Ousmane moom xam na loolu moo tax toujours mbégte la koy jural ay nitam am na ñenn ñenn fi mu ne ñu ngi comprendre ne coow li heure buy jógee rek mbégte la koy jural mhm. bu soobee yàlla mhm. insha allah jàmm rek moo ciy am loolu boo leen ko boo leen ko waxee ñun danañ ko gëm ndax surtout maam xalifa radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu lépp lu man waxuma sax maanaam ngeen wax sax mais nit ñëw ngeen ñaanal ko yàlla nii nii nii rek yàlla da koy nangu waaye rawatina jëmm joo xamante ni Sénégal yu ci bëri ñëw jël seen bopp yaakaar ko ci moom ñi nga xamante ni seen jafe-jafe yi mos a am yëpp ci njiit yi ne mos a jiite ci Ousmane sonk la ñuy bàyyi xel seen lépp jeex ñuy dund ci jàmm mais yéen gis ngeen ne daal incha allahu rabbi 2024 moom président bu fi wuyoo Ousmane lay tudd daal sant Sonko. incha allah loolu mooy am te xam nga lu tax. ñu ci kontaan di ko wax waxee. Mhm. mooy ni ñu gisee ne Ousmane mooy doon président. Mhm. noonu la ñu gisee ne lay réew mi développé. Mhm. gis nga ñun dañoo bëgg a noppalu dañoo sonn lool sëriñ bi. waaw dëgg la de wax sëriñ si xam nga lu ñu la mhm. soxla yi ci doomu aadama yi ñoo bari. Mhm. te ñun buñ sañoon ñaari soxla rek kay am. Mhm. mooy ah sëñ bi ñaanal ma ma wér. ñaanal ma ma gudd fan. waaye fi mu ne koo gis. aw ma dara. xaalis xaalis. sëñ bi liggéey laa bëgg ñaanal ma. sëñ bi damaa bëgg génn réew mi tukki. sëñ bi damaa feebar te aw ma fu ma fajoo. dëgg la sëñ bi damaa ñàkk te nangam. yooyu rek ngay dégg. ku nekk ak soxla bim lay jàmbat. nga xam ne soxla yii yëpp ñaar la ci état mooy ban ak ban. mooy ki nga xam ne. maanaam euh, gudd fan. état mm-hmm. mënu kaa joxe. dëgg la gudd fan moom. Mm-hmm. état mënu kaa joxe. Mm-hmm. loolu moom mën nañ cee continuer di ñaan. waaye am maa ci wàllu liggéey ak ay tukkeek ay nangam dafa war a yomb. te loolu yëpp wallahi lancim bu yàlla indee Ousmane incha allahu rabbi man maa leen ko wax mhm. li may wax toujours heure koy wax dama naan leen bind leen ko ngeen noté ci seen i kaye ngeen denc mhm. ngeen enregistré seen téléphone mhm. a du ñu génn ci loolu ndax ci wàll ci euh, procédure euh, politique bi ci la nekk ba tey dama bëgg ñu tàbbi assemblée assemblée nationale temps yi nga gis nu mu pëccoxoyee nit ñi dem ba ci xotti ormaay sëriñ si maanaam député boo xamante ni yow nit ki daf laa wóolu fal la pour nga nekkal fa goxam bu amee problème mu ndax nga waxal ko ko bu amee problème mu yoon nga waxal ko ko bu amee problème mu courant nga waxal ko ko jafe-jafe yooyu noonu la ñuy tànni député pour mu teewal ñi ci pénc ndaw réew mi muy assemblée nationale mais temps yi nga gis ne politiciens yi surtout ci ñi nga xamante dañuy aju ci kujje gi ci ci pouvoir bi di maanaam di di di wax di xotti ormaay sëriñ si rawatina sëriñ Moustapha Sy mi nga xamante ni maanaam kooku ay mbiram moom nee naa la soo ko soo ko mënta ñaanal yàlla bàyyi ko ci tekkaaram googu rek mu ne tekk mais ndax nga gis assemblée nationale ak guddi ñu toll ni pëcc assemblée mom dañ fa yag ñun man ci sama bop yag na fa tek sama bëtt boba ñi ngi ci campagne. député yi. ñu taxaw am ben site bu ñëwoon comme ni laaj ma. ni ma assemblée bi ciow li bari na de kan moy doon président gaay de nenañ ni nenañ ni mané ko. assemblée bi de ki doon président. assemblée day nekk nit ko xamni bu paré yeen journaliste yi da ngeen di gëstu ji kan la. ngir ñak ka xam te loolu mo am. ñu ne ma ndax jigéen Mimi Touré la may leen du sax du doon sax jigéen. ñu ne ma ndax Amadou Bala may leen du doon kuy siiw mm-hmm. ma leen du ma leen tuddal tur nag mm-hmm. ndax bañ wor ma ndax bañ a xawi wor ma waaye lañ ca waxoon booba mm-hmm. noonu la amee bi loolu amee waa ji dellusiwaat ne ma ah, li nga waxoon lépp de am na léegi nag ensemble bi samp nañ ko tey coow la fa am ma ne ko coow li door la day door di commencé la ca kanam moo raw te booba ba léegi lu lañ gis mm. wallaay waaye nag dana jeexe waaye jeexagut mm. nañ jàpp ne jeexagut sëñ bi assemblée bi jeexagul nii coow li jeexagut li ñu ciy naqarlu rek mooy mm. turu kilifa diine yi ñu ci tudd wallaahi muy Serigne Moustapha moom politique gut donte am na parti waaye moom politique gut ndax bu fekkoon ne dafa wàcc ci terrain bi nay politique konoon nag dañuy assumé mm-hmm. ne ñun ci ñun la bokk moom moo dugg ci politique waaye nag comme wàccut ci terrain bi am na parti mais wàccut ci terrain bi kon wax dëgg yàlla war nañ koo bàyyi bu ñuy xas mhm. wala ñuy wax seen waxi politique mhm. moom am na kum teg mhm. am na ñoo xam ne la jox parti bi nañ attaqué ñooña ci politiquement bu fekkee ne politique la bu dee ci diine seen yoon nekkut ca lii moo ci nekk mais sëñ bi dama la waxul loolu waaye xam nga boo ne sëñ Moustapha bu fekkoon dafa wàcc ci kii est-ce que kon nga diine ak politique mënul ànd. Ah, ñoo ànd. waaw mais xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa naqadee dafa dafa naqadee dundee. Mhm. te neex a dee. dëgg la ku dee ñu ne wàlliyu la. xëy mhm. di wa baax. Mhm. waaye kuy dund ñu ne ñu ne wëyu la. ñun noonu lañ mel wëyu. wa wàlliyu ñaar yooyu lañ boole. booy dund wayu nga boo dee wàlliyu nga. waaw waaye Euh, maanaam euh, politique. Mhm. l'islam moo tax ñu naan politique. ndax poli l'islam mhm. mhm. dafa politique. ba am Seydina Aboubacar. dafa politique ba am Seydina Omar. dafa politique ba am Seydina Aliou. ba am Seydina Ousmane ba am mboolem saxaba ya ba am sax suñu mag ñu baax ñi. politique fu nekk la l'islam politique moo ko may doole. kon bu ñu demee bay bëgg a ñaawal politique. mooy dañoo xamul liñ def. waaye politique bu doon Sénégal euh, maanaam teg nañ politique. ne diine yi wallaahi lancé ko noonu alhamdulilah rabbil Makhtoum mhm. ba mu fi yoree partem bi di politique mhm. di dem élection mhm. wallaay bu doon booba lañ ko joxoon réew mi konoon jàngkat ak tubaab dootul laal réew mi dëgg la parce sëriñ nongal daara yi lu taxaw ci réew mi ñoo ko taxawal xoolal Cheikh Ahmad Tidiane yi li mu fi taxawal lim organisé xoolal sëñ Moustapha lim organisé. Mhm. xoolal sëñ Modou Kara xoolal nitu diine yi. Mhm. xoolal xoolal xoolal Sidi Lamine Niass. lim fi mhm. taxawal fii nii. ci média ci nangam ak nangam nitu daara yi xoolal boo demee Kaolack ku mel ni Serigne Boub tey xoolal keneen ak keneen nitu da lu am Sénégal. boo xoolee nitu daara yi waaye lu yàqu. waa tubaab yi la nañ ma baal nag waaye li mooy li am. parce que tubaab yi seen jikko ya lañ leen jox. ba pare joxu seen euh, jikko ju bon ja lañ leen jox joxuñ leen jëfin bu doon jëfin ja lañ leen jox ñu mën a jëfee réew mi lu baax politique ak l'islam ñoo ànd mhm. sëñ Moustapha amoon na droit wàcc ci politique waaye bu ci wàccoon rek nit ñi wax dara dëgg la kon ndaw si nga xam ne mhm. moo ko xaw ma daf ko attaqué Ami Ndiaye xaw ma mhm. maa ngi koy ñaan mu jéggalu xam nga lu tax moom laay laayee biir sëñ Moustapha du caaxaan de waxuma la sëñ Moustapha waaye am na taalibeem yoo xam ne ñaankatu yàlla lañ taalibeem yoo xam ne nitu yàlla lañ moom leer na ma ne moom soxna soos mi ngi ñaan lu yàlla dëgg la te ñi muy waa léegi ñooñu te ñooñu sëñ Moustapha lañ yaakaar sëñ Moustapha leen di ñaanal. dëgg la léegi kon war naa mën a gëm ne moom kon. Mhm. ki koy ñaanal. Mhm. mën na kaa ñaanal tey moom mu ami tolof tolof. Mhm. kon ka kay ñaanal ka koy ñaanal nag. waaw dëgg la de. fu mu fu mu jëm. wallaay lancim bu bëggee dundam gi sedd te neex. na dem. ñu ngi koy fay ay millions. ci assemblée ba mën na faa toog di wax leneen lu dul diine. lu dul diine lii dañ ko lii ñun dañ koy naqarul parce que man. ci këru diine laa dëgg la nekkuma sëriñu tariyaax nekkuma ko. man dama nekk ci famille boo xam ne ëllëg mën naa faa nekk di xalifa général. moo tax may kaas lii. Mhm. ndax lii nii. Mhm. dañ koy door di commencé waaye day conti ñoom dañuy bëgg mu continuer parce mhm. que dafa am ñu leen koy defloo ngir yàq diine ji. da am ñu leen koy defloo ndax ñaata kilifa diine la ñu attaqué. fi mu ne sëñ Moustapha lañ kii nii. bu jàllee. ci keneen ku ko gën a kawe la dem. dëgg la. dañ ne nañ essayé ci sëñ Moustapha rek waaye wala buy jàll rek ñuy gën a kawe bi moom xam naa du jàll ci ñoom ndax sëñ Moustapha moom du ñeexu ñebe ndax moom ñun moom lu mm-hmm. Mm-hmm. waaye ñun mm-hmm. xale yi rek danañu jaral lu nekk ci baati nag ci lépp insha allah ba kenn dootu ko defati sëñ bi li nga ci wax noonu maanaam doy na sëkk Amy Ndiaye bul rëy demal nga daw la ji mm-hmm. nitu yàlla nga tooñ dawal dem la ji bul rëy mm-hmm. ñi naan la bul def bul def defal ndax mooy sa njiglaay mm-hmm. mais sa bi dama ñu njëkkante tuuti ci waxtu wi ndax balaa ñuy nodd lii de ay produits yoo xam ne Sénégal dafa am lu fi yàlla def am loo xam ne ci xam-xam rek la ko def waaye defut ko ci garab dëgg am garab yoo xam ne am na Sénégal am yoo xam ne amut fi li nii ay produits yoo xam ne ci ay garab la jógee garab yi mu jógee Brésil la jógee Brésil Brésil Brésil yàllaa def mu naat xeetu garab gu nekk daan daanaka moo fa am dëgg la fa lañ jëlee garab yoo xam ne mhm. moom lañ ñëw liggéeyee ko lii mhm. garab yi mhm. biteel bu ci nekk ak la muy faj imorit bu fekkee da nga am imorit muy bu génn wala bu dugg moo xam sa biir day riit wala dara garab gii nii imorit pour imorit la mu ci lay dox ci ci lay dox bu fekkee ne jabet da yore jabet bii pour jabet la. bii daal moom day raxas jabet ba mu set. wecc day raxas jabet ba mu set ba mu set wecc. te waaye euh, balañ laa defal garabu jabet bi. balañ la kaa jox. Mm-hmm. il faut que da ñuy indil këyit. boo xam ne dafay wane ne docteur moo wax ne da ngaa jabet da ngaa jabet ñu xam ne type lii nga yor type mhm. nga yor wala type 2 mhm. ñu mën laa xam ban lañ lay jox ndax gis nga bii type 1 la am na boo xam ne type 2 la mhm. bu dee lii ñi nga xam ne seen bët yi dafa dafa dafa dafa dafa lëndëm ñi nga xam ne dañoo am cataracte wala ñi nga xam ne dañoo dañoo euh, kii meeb meeb ñooñu pour tuufaay bi pour loolu la dafay raxas loolu yëpp ba set wecc bu dee lii maanaam ñi nga xam ne euh, comme ay maanaam garab yi du lii rek. Mhm. waaye xeetu eh, yi ñuy faj yépp. Mhm. dañ ciy defar garab yoo xam ne. Mhm. nga bii comprimé la comprimé bi am na boo xam ne sunguf la sunguf la na boo xam ne la. bii itam na boo xam ne maanaam lépp lu ñuy faj rek am ne comprimé la. am na boo la. sunguf la waaw même ku sunguf bi nag moom dañuy defaree comprimé bi itam waaye lépp benn garab gi la. gis nga bii mooy pir ñi nga xam ne wàllu kattan la. mooy ñi ñëw kattan te du la lor dara te moom xam naa ne moom <laughs> gars dañ daw ñëw set la bi ba stop bi bari li bari ba ko koy egsi duy taxaw luy taxaw te gis nga bidel su ndaw la te bidel ci du xaja fess waye nak lu ama ama ama am doole la lu am solo la ndax góor nak deug deug deug ba lañ ka xam ci këram wala bala fa am bat faw mu faa mu nek góor am katan am katan jigeen ñu lolu mo leen tax tok ci sey bi di te jamono ji legi mom mhm. waaw euh, li indi ñak euh, nek góor dafa bari dafa bari waaw kon itam señ bi stress waaw stress febar febar yi bari nañu rab yi nangam sangam lu nek waaw garab yi dal mhm. tabarakallah inshallah danañ ci gën a yaatal beneen yoon mhm. xam naa temps bi moo xat mhm. waaye garab yi lépp a ci jabet a ngi ci humorite a ci mhm. euh, ndoxum site a ci kule euh, a ci euh, am na sax ay diw yoo xam ne pour luy leeral yaramu nit ki te du ko xeesal la am na itam ay saabu yoo xam ne da nga koy sangoo pour muy dindi ay taas taas ci sa yaram mel ni ci ajoon ak yooyu yëpp am na ci xeetu lu bari daal la lu bari moo tax comme dañ ñoo ñëw bettuñu moo tax daanaka sëñ bi am na question boo xam ne moom dinaa la ko laaj la tànk may tëj mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi sëy mënuñu am am mu métti lool te bëggu ñëw ñaan baat waaye mënuñu am doom ci biir néegu sëy ba nit ñi ba nit ñi sëyal sax dañ leen di tooñ naan est-ce que jaasiroo wala nangam mbiru doom dama bëgg nga ñëwal ma ci. waaw alhamdulilah. loolu moom ci ganaar lañ koy defee ñun. waaye nag ñun mbirum doom ak. lu mu mënti doon. balañ kaa def dañuy xool ak koo mën a doon. boo ne ñu sox soo boo ñu ko waxee rek dañ naan dañ koy seet. dañ koy def istixaar ba pare consultation istixaaree ba pare. bu ñu yàlla wanee ne ñu lii nii lii koy fajee ak lii yàlla fekk ne jox nañu xam-xam boobu. Mm-hmm. ñu defal la ko bu ñu ko joxut ñu wax leen la defalu ko ndax ñun kat mënuñ lépp de Mm-hmm. dafa am luñ mën am mm-hmm. luñ mënut am fu ñu mm-hmm. yàlla yemal am fu mu ñu rombale dëgg la am ndax yàlla du jël léppam xapp ko ci sëñ bi yaa ñàkk ñam am na ñu baree baree di wallaay lancé danañuy ñëw wax ñu soxla boo xam ne buñ ñëwee buñ ñu ko waxee ba pare dañ naan leen wax dëgg yàlla de yàlla xam na ni amuñ ci amu leen ci xam-xam mënuñ ci dara mm-hmm. lenn daal lañ ci mm-hmm. la yàlla loolu sëriñ bi sax ko leen ko ñaanal yàlla nangu ko wallahi lazim lii loolu moom amul sax yàlla jëlul lépp may kenn mm-hmm. déedéet dafa am ñu fu mu ñu yemal bu ñu ñaanalee yàlla nit mu gis résultat bu mu ñu sant na xam ne yàlla la dëgg la ndax mënumaa faj soxla yi kenn koo xam ne mi ngi fees dell ki soxla mënta faj soxlaam léeg-léeg nit day ñëw wax ma soxlaam ba pare ndeke moom soxlaam ba mooy sama soxla wallaahi alazim ma ñaanal ko yàlla yàlla faj soxlaam ba ba man sama soxla bi te yow sa soxla fajul te a bokk feebar waaw mu ñëw ne ma sëñ bi yaa ay yaa faj nga sama soxla ma ne ko su ma ko mënoon sama bos laay faj dëgg la mënuma ko yàlla moo man mhm. ñun mënuñ dara mhm. yàlla moo man lépp mhm. moo man lépp moom la ñuy ñaan ci kàttanam moom lay neex mu maye moom lay naqari mu bàyyi du bàyyi nag yàlla moom lu ko jaamam ñaan dana la ko may sans départ ci fi nga jaar rek dafa am buntu ci ñaan yoo xam ne fii ngay jaar mu may la ko nga jaar fii nii du la ko may noonu lay demee mhm. waaye incha allah ñun daal mhm. bala ñoo def dara ci mhm. am doom ak ci bëgg bayra këyit ak bayraak wërsëgër ak wërsëg ak jàng ak diplôme ak lépp bu dee ki nekk bitim réew la soxlay këyit ñun li ñuy soxla ci moom bu fekkee ne déposé na ay këyitam numéro dépôt ba bu ñu ko amee am nañ tegtal yoo xam ne heure bu ñu ko ci defee yàlla na ñu may ndam duñu wax nag ñëpp waaye heure bu ñu amee téeméeri nit yoo xam ne defal nañ leen ko fukki danañ dellusiwaat ak ñoom mhm. duñ leen bàyyi duñ leen laajaat benn dërëm mhm. bañ ñëwaat mhm. bañ ne bañ ne ñu alhamdulilahi rabbil alamin ñun noonu la ñuy doxee Modou Moli sonn nañ voilà wala waaw sonn nañ ci waaye incha allah ñun moom képp kuñ defal kuñu ku ak yow ak foo mën a ci àdduna danañ fexe ba sa garab ñëw bu fekkee ne yow sax xamoo nooy def ba ñëw ñun danañ gëstu amna ay ño xamni ay DSL la mm-hmm. ño xamni ay CP lañ mm-hmm. ño xamni dañuy liggéey ak ñom mm-hmm. pour lan ndax jaamu yalla lañ jublu ci ñaan yalla tay ji ni ki ñi wo ne ñu ñaanal ñu yalla ñun ñoko warona fay ndax daf ñu xir pour ñu gëna a ci yalla ñaan yalla pour nga def ko fo nga jege yalla ndax bu dé nit ñëw na soxla wax ma ñaanal ma yalla damay dem saj sama sajjade julli tag sama borom way ko kañ ko ñaan ko kon jege ji ko kon tay ki ma ko def lo warna ka sant war nga ko sant gërëm la wara fay deug la koku mom la wara fay moo tax ñun ñaan yàlla duñ ciy fayeeku mhm. duñ wax mus kenn du taxaw ba ne mos naa wax ne mhm. sëñ Amadou mhm. fay wax na ma fay ma nangam mos am du am man kay ñaan yàlla yaay maa lay boo ma waxee sa soxla ba pare ñu man ci dara mm-hmm. Mm-hmm. dañ naan la loo yëkkati jox ñu mm-hmm. ñu ñu ñaanal la dëgg la boo amul benn dërëm amuñ sañ-sañu ne ñaanaluñ la dëgg la ndax xam-xam bi ñu yàlla jox du pour sama bopp pour jaamam ñi la dëgg la yàlla buy faj soxlay doomu aadama ci beneen doomu aadama la koy jaarale waaye du ci du ci du ci boppam mooy ñëw fajal la ko comme ci ñun la ko jaarale alhamdulilah leneen liñ soxla da koy jaarale ci keneen ci mu yomb ñu kon keneen ku soxla leneen daf ko sànq produit yi mu ngi diabétique moo xam da nga am jabet moo xam danga am tension moo xam da nga am hémorroïde lépp loo xamante ni mu ngi ci sa yaram mu jaaxal la dawal ñëw seet si ko am nañ fi ay savon ay produit ay comprimer lépp macha allahu rabbi boo ñëwee sa aajo faju dégg bu bu leen wax ne maanaam sëriñ si dañuy naxaate ñëpp ñoo yem bu ñëpp yemoon ku nekkee gedd sa cër ñii sëtu maam xalifa la kii bu ñaanee war naa ñaan bu ñaanul war naa ñaan sëñ Amadou xam naa ne lu ñu am ci waxtu daanaka jeex na lan ngay tëjee Euh, wax nit ñi mm-hmm. nañu waat xel mm-hmm. ci àdduna ci suñ ci yàlla mm-hmm. tey kenn ku ci nekk la muy wax mën naa am balaa kàddu gaa jeex mën naa wuy ji boromam ñu nekk ci internet yi nag moo gën a tax may wax mooy ñi ñuy wax sëriñ ak yooyu noonu sëriñ si ñuy wax maanaam internet bi gars yi dañuy ñu ñu nañ bàyyi baatu sëriñ si tey sëriñ bi man sama sama xol sax dafa metti baatu sëriñ si xëy na ñi nga xam ne ay ay ay ay sëriñu tariyaax ak mm. sëriñu sëriñ bokkul bokkuñu sëriñu tariyaax ak sëriñ bokkul mm. ñun ñi li ñuy def nii yàlla wallaay lazim suñ maam El Hadj Abdoulaye Niass mm. dafa bind benn téere boo xam ne maanaam daf koo bind ci xeetu comme yii nii garab bii lii lay faj garab bii lii lay faj garab bii li lay faj ci loolu lañ sukkandiku bokkuñ loolu moo ñu ci dugal waaye doonut ne dañoo dem maanaam di comme ni nit ñiy def pour dund ñun buñ toogee wallaahi lancim am nañuy taalibe yoo xam ne mm-hmm. buñ soxla woon million mm-hmm. buñ leen ko laajee ñu ñëw mm-hmm. jox ñu ko te laaj tàllal loxo rek la ñu ciy tegal kon lii buñ koy sonn di ko uti di ko def pour dimbale jaam yi rek la waaye du xaalis moo tax laajuñ xaalis moo tax kenn du ñëw ba ne daaj nañ la xaalis kon li ñuy tëjee daal loolu la mooy ñi nekk ci ñi ñuy wooyee sëriñ nañu bàyyi xel seen diggante ak seen borom ci wax yi li la mënta may xaalis jërut cee wax ay football beeg lambu jeeg yépp dafa am yoo xam ne mbirum jinne la mbirum jinne ku amul jinne doo ci dox mhm. ku amul jinne te jinne ku ko xam doo ko uti mhm. Mhm. ku ko xam doo ko uti jinne moom kenn du ko uti moom moo lay uti dëgg la waaw gars yi nag léeg-léeg da ngay dégg sama jinne ji sama jinne ji <laughs> te fekk jinne yi ñoo leen moom dëgg la wallaay loolu moo ci nekk macha allah kontaan nañ di ñaan yàlla site bi yal na yàlla def ko télé yàlla na yàlla def leen mag ñu ñaan yàlla ci kàddu gi ñu yëkkati bu fekkee ne am na benn dëng dëng ci yàlla yal na ñu ko yàlla jéggal bu fekkee ne laal na benn xolu doomu ñaan nga jéggal ko li ñu bëgg rek mooy jëriñ nit ñi rek jëriñ nit ñi kese moom moom moo ñu tax a jóg wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa wa barakatuh jërë ngeen jëf sëriñ ahmadul ñas la sëtu maam xalifa nee naa la doomu leer la waaye sëtu leer la ñii ñaan xaalis taxul lañ ci dugg jimbale jaami yàlla ni ko seen maam defee loolu moo leen ci dugal yow mi nga xamante ni nag bëgg nga aajo bu faju wala dox nga ci sëriñ yu bëri dox nga ay kilomètre ñaan kenn mënu laa ñaanal mu nangu dawal ñëw seet si ko incha allahu rabbi numéro téléphone yi dañ leen ko jox ci kàttanu yàlla mais li ma ci jaaxal tuuti rek mooy ñoom daanaka du toog ndakaaru li dañuy ñëw nii rek ñun ñoo leen ñoo leen sonnal sax pour ñëw jël leen mais bëgguñ ko woon sax waaye incha allahu rabbi numéro téléphone yi dañ leen ko jox fépp fu waaye nekk boo leen wooyee bu dee ci garab yi nga bëgg danañ nga jot ci ci kàttanu bu dee Europe nga nekk fépp foo mëntu nekk ci àdduna bi soxla ci garab yi boo leen wooyee ci numéro téléphone yi da ci jot comme ni nga ko bëggee incha allahu rabbi bi yow mi nga xamanteni terrain nga bëgg muy femme wala muy homme am nañ fi sabon bo xamne wala ak sampoñ bo xamne boko sango ma sha Allah rabbi jaratul ngay jaar fenen waaw lolu mom ñun ñoleen ko mëna garantie garanti daw leen ñew seet ko ñu ngi leen di jox di dajee ba benen yoon insha Allah rabbi jërë ngeen jëf ilallahi wa'du yanaalul maqaama la raja